نفسي وديني ثم لي والبلاد ومسكني لك وديعة الأباد waa bi ñu santee yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad di delloowaat sunu yaakaar ba ci Cheikh Bassirou Sarr jaam borom Touba ñu jëlee ndigal ci sëriñ bi di sëriñ Moustapha Sarr mum Cheikh Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba mu woolu rakkam ju tedd ji di sëriñ Abdou Khadir Sarr moom sëriñ Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba mu yëkkatil ko ay kàddoom nee na taamu na ko ci ndax kàddoom yu rafet nee na leen sëriñ bi wax moo wax lum lihat leen digal moko moko sat neena mi ngi ñaan ci barkeb Serigne basirou sar buñ ko ko ci bismillahir rahmanir rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñepp ñu maase teewlu te diglu Serigne Jili mum Serigne bissar jamm serigne touba bismillahir rahmanir rahim. bismillahir rahmanir rahim. assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi fi mbokk taalibe yi fi teew yëpp. ñoo ngi yëkkati kaddu. neena ñoo ngi kaddu. ci ndigalul sunu kilifa. ci ndigalul sunu kilifa. sunu wayjur. sunu wayjur. sunu sëriñ. sunu sëriñ. sëriñ Moustapha Bassirou. sëriñ Moustapha Bassirou. moom sëriñ Bassirou Sarr jaamu Sarr. moom Cheikh Bassirou Sarr jaamu borom Touba. ñu di ko nuyu bu baax. ñu di ko nuyu bu baax. di ko sant bu baax. tey di ko sant bu baax. di gën a feddali bu baax. nee na di gën a feddali bu baax nag. sunu laxasaay. sunu laxasaay. ak sunu taalibe. ak sunu taalibe. ak sunu jaayante. ak sunu jaayante. ak sunu njureel. ak sunu njureel. ci sunu diggante ak moom. ci sunu diggante ak moom. ci turu ñi mu bokkal sëriñ bi ñëpp. ci turu ñi mu bokkal Cheikh Bassirou Sarr jaamu Sëriñ Tuubaa gépp. ñuy ñaan ci barkeb yor-yor bii. ñuy ñaan ci barkeb yor-yor bii. sunu borom dolli ko ndimbal. sunu borom dolli ko ndimbal. dolli ko tawféex. dolli ko tawféex. dolli ko ak mucc. dolli ko ak mucc. doli ko karange dolli ko karange ci barke serigne touba ci barke serigne touba ak wayjuram bu baxu teddu ak wayjuram bu baaxu teddu nga nga xamne laxasaayam gala tak nga nga xamanteni xassayam gala tak togaayam bala tok togaayam bala tok ci jëfam jala nek diko mot ci jëfam jala nek diko motali ci barke jëmu jojja ci barke jëmu jojja ñaan yoy ñu koy ci jëmmam ñu koy ci jëmmam ju tedd ji ñaan suñu borom defal ko ñaan suñu borom defal ko ko bu loolu jàllee nag. bu loolu jàllee nag. mbokk fi teew yëpp. mbokk fi teew yëpp. sunu kilifa dafa wax ni. sunu kilifa daa wax ni. Serigne Moustapha Bassirou. Serigne Moustapha Bassirou. nanu ko yëkkatil kaddu. nanu ko yëkkatil kaddu. jëmee ko ci seen i jëmm. ko ci seen i jëmm. muy kaddu yu cant. muy di kaddu yu ngërëm. di kaddu yu ngërëm. amaana du doon yu yees. amaana du doon yu yees de. yuy feddli ko rek la. yuy feddli ko rek la. ndax jëf ji ngeen xam ni. ndax jëf ji ngeen xam ni. àndandoo ngeen. àndandoo ngeen. boole seen bopp. boole seen bopp. boole seen i pas-pas. boole seen i bolé seni jëf. bolé seni jëf. di dajalé diko di ba jëf ko. ba jëf ko. andi ko fii. andi ko fii. ci kanamam. ci kanamam. jébbalaat ko sen bop jébbalaat ko sen bop jébbalaat ko seni jëf. jébbalaat ko seni jëf. néna na loolu mi ngi leen ci. waaye nee na loolu mi ngi leen ci sant bu baax. di leen ci gërëm bu baax. di leen ci gërëm bu baax. ndax la ngeen waxon kat. ndax la ngeen waxon kat. ci seen digganteeg sëriñ bi. ci seen digganteeg sëriñ bi. ko waxoon. waaye yéen a ko waxoon. yéen a jaayante woon a jaayante woon. wax ne joxe ngeen seen bopp. wax ni joxe ngeen seen bopp. joxe ngeen seen alal. joxe ngeen seen alal. joxe ngeen seen lépp. ngeen seen lépp. ngeen dëggal ko. nag. ci seen jëf yi ci seen jëf yi mu ko seere. mu koy seere. di ko seereel Serigne Touba. di ko seereel Serigne Touba. ak ki ko fi bàyyi. ak ki ko fi bàyyi. te muy wéyal ab liggéeyam. muy Serigne Bassirou Sarr. muy Serigne Bassirou Sarr. jaamu Serigne Touba. nee xolam setna guuy na guy. jëf yi sell na. rafet na rafet ni itam. xamna itam. lu jeuf ji reey reey la ngeen bàyyi ci yene la ngeen bàyyi ci yene moo ëpp jëf waaye dara dara tëwu dara tëwu kon ñu koy ñaan. kon ñu koy ñaan. yene yoya yéene yooya. yàlla yàlla ko yàlla tàbbal ci jëf yi barke Serigne Touba sunu borom fay jëf ji te fay yéene yi ni mu fayee jëf ji barke Cheikhul Khadim mu leen di xamal ni moom de seenub jëriñ rek la fas yéene ànd ak yéen feddaliku bu baax. dëgëral ak laxasaayam ci liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi nag ku koy def. da ngay ànd ak jumtukaay. booy dem tool booy dem tool. da ngay yor gopp. baa nga yor machine. moom nag tool bi mu ne. yéen ay goppam. yéen di machine am. yéen lay bayee. yéen lay ruujee. kon mi ngi leen di sant bu baax. di leen digal. ngeen gën a góorgóorlu. te laxasaay bu baax. te xam ni kat. li nu bëgg. yombul de. waxtu woo jugee jëm ci luy dox sa diggante luy dox sa diggante ak moom. ngir bëgg laa dogale. waaye boo amee fulla am fayda te xam li nga bëgg lu mu doon lu dox sa digganteeg li lay faagaagal da ngay jaar ci koom jàll mi ngi leen di ñaanal mi ngi leen di ñaan mi ngi leen di ñaan ngeen sax ci loolu sax ci ak dëggal ak sellal bu baax te fonk seenu taalibe bu baax taalibe gi ci la lépp ne taalibe gi nag daa am lu mu laaj ku joxe sa bopp moomoo sa dara ñu wattandiku bu baax yi ga xam ni day xajamal doxinu murit mooy di am gis-gis wala ngay am xalaat ci lu wuutee ak li sëriñ bi gis waa lu wuuteeg ak li mu xalaat bañ ko joxe suñu bopp daal lañ ko jox sunum xel jox ko sunuy bët jox ko sunu lépp xalaatam mooy sunu xalaat ab gis-gisam mooy sunu gis-gis loolu mi ngi ñaan mbooloo mépp ngeen tënku ca loola ndax bu sañoon li mu yéene ci yéen di ngeen ko am mooy loolu mooy li sëriñ bi yéene ci yéen la koy maye nag mooy fu mu joxañ rek ak lu mu bëgg ngeen doxe ni ngeen doxe noonu te xam ne ak taalibe ab taalibe moomul boppam ku moomul boppam du xalaatal boppam du waxal boppam du jëfal boppam lu dul la ko sëriñ bi jëfal ak lam ko tànnal ak tànneefam nanu gën a sunu tànneef ay xalaatam nanu gën a sunuy xalaat te ngeen boole ci itam bëggante lool ci seen diggante kenn ku ci ne ngay xool sa morom ci sa bopp di xool la mu baax le di xool la mu la nga xam ne melul na mar a mel nga nëbbal ko ko ni nga nëbbee sooy si bopp bu ngeen ko defee yàlla miy dimbali ab jaam mën na leen a dimbali góorgóorlu bu baax te fexe ba ñu sëriñ bi bëgg ab murit mel ni waaye ñu mel noona ñu dëggal te sellal ndax mooy tax li nu bëgg sëriñ Tuubaa moom li mu yor kat da koy jaay rek. mayewu ko leblewu ko te Cheikh Bassirou jaamu sëñ Tuubaa waxoon na ni du wàlle lu la nit yéene yéene te ndabul teraanga li tege te nangu woo a tibb jëfandiku lum la yéene yéene lam bëgg munoo ca jot kon li tax a jaruñu ku la bëgg a dimbali da lay liggéeyloo te liggéeyloo la jëf fenn lu dul sëñ Tuubaa foofa rek fa la waajuram nekkoon nañ ci bokk sax ñun ñëpp. te bokk ko jàpp te bokk ko xool te bokk ko yaakaar te ko taxaw ñun ñëpp itam kenn ku ne doonum ñag rek si Cheikh Moustapha mi toog luñ ko joxee suñu bopp waaye nan doon kaaraange nan doon ay jumtukaay nan doon ay liggéeykat nañ doon muridu dëggal ci suñu diggante ak moom loolu nag ñu ngi koy ñaan suñu borom defal nu ko defal ko suñu bokk murid yi suñu bokk donga yi loolu ya suñu borom defal ko su ñëpp barke Serigne Touba sat na bu baax gërëm na bu baax jëf ji rëy ci moom lool seet na xolam guy nee na mi ngi ñaan Serigne Touba seral seen i xol dafal leen seen bëgg aar leen yéen itam bu baax sàmmal leen Serigne bi itam ba li mu bëgg ci yéen rek Serigne Touba defal ko wax ji nag wax Serigne Moustapha ma ko wax waxi Cheikh Moustapha Koxlo waaye nag waxi boppam moo gën samay wax man mii na moom moo gën a jël ay waxam ay waxam moo gën a jot moo gën a taaru moo gën a taaru moo gën a mel ni war a mel ne mu feeñal yéeneem ngir ndigal ñaan lépp lu ci jub suñu borom def ko mu ñu am njariñ tanu jariñoo ko lépp loo xam màgg a ci mu di ko tuubal sëriñ bi te xam ne yéeneem ëppoon na loolu barke si juba yàlla nañ fi yàgg a ñëw yàgg ko fee fekk noo ngi sant bu baax nanu maasi ñun ñëpp rek waaye laxasaay te topp ci gannaaw te déglu ndigal te bàyyi tere loolu daal mooy li am murid war a doxee mooy wàccaayam yàlla na ko sunu borom defal barke Serigne Touba yàggal fi Cheikh Moussa lool dooli ko ndimbal lool dooli ko tawfeex lool ba yéeneem yëpp mu def ko ni mu ko bëggee mottali yéene yi waajuram ak magam yu baax ya jiitu ya jiitu woon baax Serigne Touba ñoo ngi sant bu baax Serigne bi tey tuubaat bu baax tey feddiliwaat sunu laxasaay ci yow ak sunu jaayante ci yow ak sunu taalibe ci yow ci yor-yoru màggal gi di ko seedeel Serigne Touba mi borom bis bi jërëjëf Sarr ñoo ngi sant bu baax jërë ngeen jëf. sëriñ bi nee na lépp man na mënee su cee dolliwaat dara nee na di ñe delluwaat di ñaanalaat njaboot gi yëpp Sarr ñuy ñaan nga yàgg fi sunu borom guddal sa fan nga jataay bii nga toog wut sa mag yu tedd ya ñuy ñaan sa ati ya ak sa ati yi yàlla na la dal ci barkeb sóor la na ba dan ñun bëggunu gëmunu yaakaarunu kullu Cheikh Bassirou Sarr jaamu sa juba ndax la tàmbale Cheikh Modou Moustapha ba Cheikh Modou Moutada ku ne ko jëf jërëjëf jërëjëf jooju nag saar jugu fi mi ngi fi tey la gën a neex tey la gën a yaatu tey la gën a yiw mu Moustapha yalla nga wuy nunu sa turandoo Cheikh Moustapha suru mat jabal mi ci guy texe maam Malick mi ci barke bi yàlla na jataay bi yàgg yàlla na jataay bi wér yàlla na jataay bi neex taalibe yi ami koom am dara dina ko yut saar dee ñu sëf ñuy sippi te saa boo ñu sëfee mu gën a neex saa bu ñu sippee gën a raw suñuy maas jërëjëf Saar Njaga lañu ca lañu sëñ bi digaloon ah, santaat nañ sëñ Tuubaa baax nag ñi ngi ñaanal sëñ bi yàgg fii lool tànn ak wér barke sëñ Tuubaa ñu ngi koy ñaan bu baax a baax te ñaan it mu def barke suñu làmmiñ ba li ñuy ñaan te ni mu dëggoo ci ñun mm. ne suñu xol yi yàlla defee ko noonu ci barke jaamu sëñ Tuubaa ñu ngi koy ñaan baax a baax nag waaw ah, ndax mbooloo mi daayira fédération la. ci ñaan suñu bés saar jàmm suñu taal moo ne woon di ngeen dem ba kenn ku ne bokki ca. ginnaaw bi loola. ci dem Dakar. daal di defar daayira Sóoru bu Kër Mbay Fall. ma dem Sanjara defar daayira Sóoru Ramadan bu Sanjara. ñu euh, ndeylum dem Njaañ. ak bàyyilum taxaw daayira Sóoru Ramadan kon lu ma ñëw na. kon ñun wax dëgg yàlla mu ñëwoon daayira maa ko moom. xam nañ ko ñun seen alal lañu. amuñ lenn lu ñu xaaj ci ñun ndigal. te it ñun du ñu xaar dara lam ñu waxoon ni lépp lu may jiitu yéen lépp lu may digle mm. yéen ci war a jiitu mm. lépp lu may digle yéen a ci war a mujj mm. loolu la ñu fas jëfe incha allah te ci la ñu nekk it ñun nag ngësëm leen duñ dañoo ñor tab bi ku ñor tab bi nag bokk ak ngësmandi ñun ay doom lañu doomi xol lañu di taalibe yoo xamante ni dëggu lañ te yu bëgg sëñ bi lañ lool nag te bu sëñ bi wàccoon fi ëkkit barke sëñ tooñ topp ca barke jàmboram Tuuba dañuy sàkku rek yéen ñaanal ñun xéewal rek lañ bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa rek la ñu bëgg barke sëñ Tuubaa ah, kese lu ñu am yéen sëñ bi lañ ko yéene yéenuñ keneen leen luy sëñ bi ràññee nañ ci baax a baax nag koo wax mu ne ko sant Sarr faale wuñu ko waaye ñu Sarr lañ Sarr lañu sago Sarr la am Sarr lañ mm-hmm. yaakaar saakaaruñ neneen mm-hmm. barke jàmm sëñ Tuubaa sëñ bi xale yaa ngi nii am nañu li jaasa ñaan leen ñu am xéwal mm-hmm. barke sëriñ Tuubaa lan Sarr dina mel noo xam ne kenn du ko nettali loolu la ñuy sàpp mbooloo mi ñaan leen ko yàgg moom rakam yi sëñ jili mi tool na sama xol li mu ci moom barke sëñ Tuubaa saar yi tamit yàlla fi yàgg loolu tànd ak wér yàgg say barke sëñ Tuubaa jërëjëf ñu ngi jégg lu baax ci daraje jaamu sëñ Tuubaa ni ñuy dégg xamante nañ sëñ bi sëñ Moustapha na yan di ñaanuñu de dama ne na fi yàgg. yàgg laa bëgg ñëpp ne Serigne Moustapha na fi yàgg. Serigne Moustapha Sarr yàlla na fi yàgg. fii la lépp xewe fii la lépp xewe fii ci mbaar mii la lépp xewe keroog bi ñuy taxaw ci kanamu jaamu Serigne Touba ko ay ndaw lañ yu doon perantal toll ci jàng taxaw te amuñu wenn wéeruwaay wu jaamu Serigne Touba keroog lanu ne dinañ leen defal loo xamante ne jomb seen i maam jomb na seen muy sóori lan abadan jagleel naa leen ko muy ñaar fukki at ak benn ci tey kon murid yi bàyyi leen caaxaan yi te xam ne sëriñ bi mooy ki ne ñun amuñu ñun existé wuñu ñun ñun yéen a am yéen lañu xam sàkkuñu ku ñu gis ak ku ñu yëg gëmuñu loolu euh, sàkkuma lu neex kenn man wala lu koy naqari ku ma xam xam nga loolu Cheikh Bassirou rek laay noyyee moom képp laa gëm moom képp laa wóolu mosuma taxaw ci buntu kilifa mësta am barke jaamu Serigne Touba képp ku may wormaal jëmmi jaamu Serigne Touba moom moo tax Serigne Djili yal na Serigne Touba dëgëral la yal na Serigne Touba dëgëral la ñun suñu sag ci kër jaamu Serigne Touba mooy taxawaay yu murite yii yéen lañuy ñuy tiitaroo lu dul lu rafet moom moo lu rafet rafetuñu ko gënal te lii dafa rafet lool sëñ Moustapha lépp daanaka buñ fi lépp fekk lu ci ëpp gore nañ ci sa sa sa jotaay ci kër jaamu Serigne Touba lu ci bari gore nañ ci kon nag na xel mi daal jaamu Serigne Touba seede na na yan bi day woyof jotaay yi fi yi fi yi fi jaar yëpp benn fekkuma ci bii la ma jaamu Sëriñ Tuubaa woo te jotaay bii moo bokk ci jotaay yi gën a tar lu ma neex wax man man jaamu Sëriñ Tuubaa laa gëm man te gëm gi ma ko gëm dafa wér te gaayee ma ko gën a gëm nag ñii ngay gis nii ñoo ma gën a sarsarale ci jaamu Sëriñ Tuubaa sóori lan abadan amul daw waa Ndakaaru bi ma leen di wax ne ñëpp dañuy diplômé boobu ay C2 la ñuy def ak CM1 ay lija boroomi licence ñoo fi nekk léegi dama ne la liggey bi tàmbaleegul to serigne Moustapha dañ koy andé kon ma ngi ñaan ci daraje jaamu serigne touba murid yi kum doy dara dula doy yokku len pas pass yi yokku len pas pass yi ta xamne liggey la guñ serigne touba Cheikh Bassirou sar nee bis bi ñu ñëkke dajalul mat fanweeri junni jënne koy ndap tay gandaan ñew ñuy abani bol mo sos daayira bi serigne jili fi la len lepp fekk mu ñu di ngeen am lo xamante fu ngeen ko def dina len jaaxal mo tew tay serigne Moustapha dundal Serigne Djily ànd len liggéey bi ak mbolam njabootu jaamu Serigne Touba lepp lu nara galankor senu doxine diko xajamal di ci juri pak jamu Serigne Touba neena lepp luy pak sen digg Serigne Touba dindi nako ñun luñu neex def xana deggu len ma man luñu neex def ñun Cheikh Bassirou ñu ko assurer te nak du tax ñu def lu def wut ndax fu ñu nekk ñang fay wormal jëmmam ji ku ñu gis xamne Cheikh Bassirou lañ am ku ñu degg 30 secondes xamne jamu Serigne Touba lañu dund ñun kon mouride lillahi wa rasulih maa ngi ñaan ci daraje jaamu Sëriñ Tuubaa pas-pas yi nañ ko dolli pas-pas yi nañ ko dolli pas-pas yi nañ ko dolli te xam ne sëriñ bi mooy ki fi ne jaamu sëñ Tuubaa jógewu fi jaamu Sëriñ Tuubaa jógewu fi te li may wax lu ma wér la waxantu ma de sëñ ji li mat na ci seede xanaa sëñ Moustapha li may wax leer na ko man samay wax daf may ëpp doole moo tax fii la xewee ci mbaar mi ba may wax xamatuma lu may wax ma ne ko dafa mel ne yow jaa euh, sëriñ Saliou xel koom ak xeet yu ni mel du la fa yabal kon ñun yaay suñ sëriñ Saliou mu ne ñu Basiru dafa mel ne li ma sëñ Saliou doon wax biig ba nga koy wax danga koo teewee fii la népp xewe kon yàlla na sëriñ Tuubaa defal ñëpp jàmm yàlla na defal ñëpp jàmm murid yi sëriñ bi suñu bëgg du lii lii gisuñ lii lii lii lii du jëf lii yaraanga ci ñun barke jaamu sëriñ Tuubaa li bëgg du lii li bëgg du lii te sëñ Tuubaa mi ñuy taw feexal de maa ngi am xéewal murid yaa ngi am xéewal barki jaamu sëriñ Tuubaa ci kàttanu jaamu sëriñ Bamba yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla dëgëral leen pexe mu jóg ngir tàggale leen yal na sëriñ Tuubaa gàllankoor googu pexe pexe mu jóg ngir gàllankoor leen yal na sëriñ Tuubaa gàllankoor googu pexe sàkkuwuma ku ne Basiru ñang wala ku ne wut Basiru ñang yéen dundu leen am leen tawféex am wéyale leen seen liggéey waajur wa ci kàttanu sëñ Tuubaa xasida yi ñu ànd lépp maa ngi tubaat bu baax nag ci kàddu yu teengi sëriñ bi maa ngi koy teng maa ngi koy jég baax ndeysaan fooy tal na tàllal loxoom te nangu ñaan nee leen amiin